yaa ngi si jàmm waa combat bi génn eh, waaye dama kaa dóor ba mu abandonné ah ci euh, ay deux minutes xaw ma une minute deux minutes yooyu rek bëriwul ko salaamaaleykum mbokki internet Leewtoo TV ginnaaw leen leen jaajëfal bu baax di avant ki ma toogal Mbaye Babacar nuyu naa jërëjëf Ndeye Mbacke fay naa la nuyu bu baax a baax suñu mbokk internet yi nga xamante ne bii saa su ne dañuy topp fii ci euh, Leewtoo TV di euh, seen bi nga xamante ne bii lépp luy wàllu làmb fii dong ngeen ko mën a amee. lépp luy wàllu lamb dañuy dem ba fi nga mooy MMA à Singapour ki nga xam ne mooy Reug Reug ba Alain Ngalami en moins de de deux minutes par abandon. Euh, noonu nga ko waxee Ndeye Mbacke noonu la demee mu mel ni fan yi yëpp xel yi ak xalaat yi ñu ngi woon fële ca Singapour nga xamante ne bii fa la Reug nekkoon euh, sénégalais yi nag doon bàyyi xel combat bi bu baax a baax ndax Reug Reug dafa nekk mbër ma nga xamante ne bii macha allah dafa wane boppam ci mbapat yi def ay performance yu am solo. jël li mu jël ci ay drapo kenn xamul lu mu toll bi mu duggee ci arène bi tamit mas la même chose euh, bëre ak ay champion ya nga xamante ni bi ñu bëri dañu jàppoon ne rëg-rëg mën na ci sax bañ a génn mu génn ci ci ay victoire yi nga xam ne kenn du ko laam-laamee waaye bi mu jógee foofu nag dafa dugg ci MMA bi nga xam ne c'est international ba mu ci duggee tamit ñu gis ne mu ngi def ay performance mu ngi wonee boppam comme combat mbekk Pierre Ngalani nag li ci gënoon a doy waar euh, Ndeye Mbacke mooy Euh, Pierre dañ ko gis ci ay entrainement muy bandi bandi lu weq gauche weq droite weq wëndeelu loxo yi neex macha allah sénégalais yu bëri tiit. sénégalais yu bëri nekk ci pression. mais mais Reug Reug moom xamoon na ki mu doon bëreel euh, te it jàng na ko ci anam yu baree bëri mu nekk mu nekk mbër ma nga xamante ne bii tamit mbër mu am fulla la. am fayda ñemee ci li muy def yaakaar naa loolu moom moo ko may mu génn ci combat bi ak victoire ba nga xamante ne bi ñëpp yaakaaroon na combat bi mën na gën a yàgg noonu. mënoon na gën a yàgg loolu rek dafa ñëw imposer nga xamante ne nii mooy puissance am ak jeunesse am parce que étant donné que. Alain moo mag Reug Reug mhm. ci lu bari moo ko ëpp expérience loolu tam tiitoon nañ ci loolu. surtout tamit daf ciy feeñ li ñu naan jeunesse moom moo gagné expérience. parce que gis nañ ne Alain moo gën a nekk mag parce que mën nañoo jàpp ne mu ngi toll ci 46 ans Reug Reug mu ngi ci 27 ans. Mhm. waaw mu ngi ci 27 ans mhm. mu mel ni dooley xale ak dooley mag du benn foofu tamit li naan doole doxul jàmm moom moo fa feeñ. loolu fa feeñ ki nga xam te ne mooy Juan ba mu xëyee. àdduna ci li nga xam te ne mooy journal suñu làmb mu ne ki nga xam te ne mooy rëg-rëg waroon na mën a war na mën a génn ci làmb ji facilement moom gisoon na ne rëg-rëg mënoon na battre ki nga xam te ne waaw xam nga olof Njaay daf ne li mu saf ko màcc rek a ko xam te euh, li ki moom moo xam la ca biir déeg ba moom mi mm-hmm. nuur ba ca biir ban ba mm-hmm. xam nga xam nga xuwaan dafa pratiquer MMA mm-hmm. dafa pratiquer MMA xam na li nga xamante ne bii moom moo nekk ci MMA te it nee na xam na nga la ni euh, xam na rëg-rëg parce que mi ngi mi ngi mi ngi woon Sénégal mi ngi woon école de lutte Balla moo tax bi ñu ko laajee ci combat bi mu ne combat bi war na mën a yomb ci rëg-rëg ci rëg-rëg te it yaakaar naa histoire jox na ko raison euh, jox na ko dëgg euh, combat bi ñu bëri nañ jàppoon ne ni ni la war a mettee ci rëg-rëg demeewul noonu kon mën nañ ne xoma xuwaan euh, li mu wax loolu loolu lañu gis ci làmb ci loolu lañ gis rëg-rëg état lu nekk sigil na Sénégal di ko féliciter encore une fois ci victoire boobu noonu kaaw bi waaw gisoon nga loolu gisoon nga ne rek waroon na mën a war na mën a kaaw ak nga ne waaw kaaw bi bett bett nañu bëri mhm. bett nañu bëri ndax euh, euh, Alain ni ma la ko waxee sànq euh, dafa nekk mbër ma nga xamante ni bii champion la te it àdduna yëpp ko xam àdduna yëpp ko xam mu wane boppam ci anam yu bëri nag loxo ya neex macha allah ñu bëri xaaruñu woon kaaw bi ñu bëri xaaruñu woon kaaw bi parce que ni ko gisee muy dóor def ay démonstration euh, chaque jour euh, mën naa ne vidéo yi gën a na yi gën a na yi gën a na garaaw ci ay vidéo lan doon partagé duñu ko woon ñun sénégalais yi loolu bokkoon na ci li taxoon combat bi euh, sénégalais yi xawoon ci am pression tuuti mais mais mais kaaw bi bett nañu man man sama xalaat sama xalaat bett nañu bëri parce que ñu bëri xaaruñu ko woon mais rëg-rëg moom euh, ñàkkul préparé woon na. rëg-rëg xaar na ko moo tax mayu ko sax temps parce temps bi leen joxoon yaakaar naa ne combat bi yeggul foofu noonu étant donné que moins de deux minutes mhm. bi leen mayoon rëg yegguñu ci. Mhm. mu gagné ko ci ci ci anam bu gaaw ndax euh, euh, li li ma wax sànq rek doole xale ak doole yi mag du benn te xale suy bëree ak mag du ko may mu xalaat. Mhm. doo ko bàyyi mu xalaat doo ko bàyyi combat bi combat bi yàgg rëg-rëg dafa ñëw def li mu war a def génn ci combat bi suñu borom may Reug Reug bi ginnaaw bi mu jógee ci nga xam te ne mooy Sofiane Boukichou daan ko keroog ca 14 décembre 2019 fii ci suñu réew Sénégal tey gañëwaat nag ki nga xam te ne mooy Alain Ngané mu dese ko li nga xam te ne mooy 4 combats étant donné que 5 combats la signé ak waa MMA pendant 27 mois lu ëpp ak 2 ans. ñu mën ne Reug Reug mu ngi ci dynamique bu baax. mu ngi ci dynamique de victoire. parce que booy xool ki mu mujjee daan mooy Sofiane Boukissou di franco marocain boobu nga xamante ne bi moom tamit champion la ci ci MMA bi ah. euh, bi mu mën nañ jàpp ne rek rek bii mooy deuxième victoire koy am ci euh, MMA bi mu ngi mujjee daan euh, Sofiane Boukissou c'était le 14 décembre 2019. nekkoon combat ba nga xamante ne bii tamit combat bu metti woon na ci moom mais suñu borom may na ko ci ndam kon tey bu ñëwee jël Pierre Alain Ngalani daanaa ko mën nañ jàpp ne mi ngi ci. dynamique de victoire te mën na ko ubbil bunt yu bëri. da koy ubbil bunt yu bëri ginnaaw am na ko addu maa ngi xool maa ngi xool euh, Rocky Balboa moom tamit xam na ne. ci MMA lañ ko xamee. Mm-hmm. Euh, nee na nee na euh, nu ñu koy waxee Reug Reug am na cinq komba bëri na benn bi tey mu desee quatre. nee na ki gënoon a dangereux ci cinq yi la doon bëreel tey mën na jàpp ne kon quatre yi ci des yëpp mën nañ ci am xel mu dal. mën nañ ci am xel mu dal ginnaaw ba mu bëree ba mu bëri li nga xam te ne mooy premier combat am ci MMA bu desee ko quatre te Olof Ndiaye nee uh-huh. ku tëb dal ku tëb dal ci xaal dese na la beneen tëb kon yeneen quatre kombaam bi. waaw mais day baax xam nga Olof Ndiaye tamit nee na cin bu neex. su baxee dafay xeeñ su dafay xeeñ mhm. te yaakaar naa fi toll nii li xeeñ neex na li ah, lii xeeñ neex na ka waaw li xeeñ li xeeñ neex na mi ngi noonu Reug Reug commencé ak euh, benn victoire ba nga xamante ne nii cinq combats la war a bëri mhm. kon mën nañ jàpp ne fi mu toll nii mu ngi ci yoon nañu yokk ñaan yi rek Sénégal yi gën ko ñaanal moom tamit mu bañ mu bañ a naagu mhm. yokk ay entrainement am gën a concentré wu ci li muy def gën a bàyyi xel ci li muy def te jàpp ne Sénégal yëpp ñi ngi ci gannaaw parce que wax na ko moom xam na ko sax wax na ko. Mhm. nee na damay dem pour défendre couleur Sénégal. couleur Sénégal dem demuma ngir écrit bi ma bokk. Mhm. demuma ngir sama waa koñ kese wala sama waa. Mhm. sama waa fi mu aussi ndax rëdd bi mu nekk. très Sénégal Sénégal la demal. très bien dafa dem ngir Sénégal. kon tey mën nañoo mën nañoo jàpp ne Sénégal ak Cameroun ñoo doon jongante waat mu fàttali ma 2002 final na fayul na waa Sénégal na waa Reug Reug fayul na waa Sénégal konte ji Reug Reug félicitations à vous. Mhm. xelam daal nag mooy guy gi moom ma nekkee États-Unis war naa am problème de ginnaaw Reug Reug moom instant bi yaramam daa tàng. waaw guy gi ku nekk xam na ni Reug fi mu toll nii moom guy gi combat boobu taxaw na. loolu yaakaar naa picc yi sax moom la ñuy mu nekk combat ba nga xamante ne guy guy gi guy gi am na combat. am na combat bu rëy état donné que S bi moom. am na combat Reug Reug mu ngi ci dynamique bu baax a baax a baax. est-ce que fi tam demul. ngi entraîné mi ngi compétir bu baax a baax gis nañ ko tey rek mu bëre ak euh, Ngalani euh, mu nekkoon combat ba nga xam Sénégal yëpp ñu ngi ko doon bàyyi xel euh, bu jógee foofu nag war a bëre ak guy gi guy gi tamit nekk champion ba nga xam ne macha allah ñu bëri. bu amee combat dañ naan combat bi du ci génn mais day ñëw génn ci. génn ci facilement day ñëw génn ci parce que booy xool guy gi yi doon bandi bandi lu ci arène bi yëpp. moo leen mm, mm, mm, fayal kun ko ci jox ku nekk mu defal la bagage kun ko ci jox ku nekk say mbokk bu ñu ñibbi bu ñu am lu leen neex kon nag mën nañ wax ne combat bu nar a neex lay doon diggante rëg-rëg ak guy gi mais attention guy gi attention guy gi foofu la ñuy ndar keppee xibaar yi lii moo nekkoon li gën a fës ci yéenekaay yi di la jaajëfal bu baax yow Mbaye Babacar bi yow ma féggaloon euh, Ndeye Mbacke maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax wante tamit maa ngi jaajëfal suñu mbokk yëpp yi nga xamante ne bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV. ñu ci mel ni waa groupe WhatsApp Lambi Bawol nga xam ne ñoom chaque jour ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV ñu jaajëfal bu baax a baax nekk fële ci diwaanu ci mel ni Zal Confiance Issa le fou de Tanor ak Alpha. di kontaan bu baax a baax ci Aliou Sène fële ci Allemagne. borom Sadio Diamane production moom tamit dafa ñuy topp saa su ne ci Leewtoo TV. jaajëf jaajëf waa Leewtoo TV Leewtoo production di jaajëfal sama cameraman yu ñaawee Ousmane. Mansour Dia bëgg naa leen bu baax a baax di leen jóg daje ëllëg incha allah ci